coowal Jeanne que tamit ñep dégg neen ko muy école bu nekk ville école catholique bo xamni ni day bañ ñi fay jangé muuru mom nak ni mu mujjé ak gouvernement bi moy euh, d'accord na élèves yi nga xamni dañ daan muuru ñu ñew waaye mom mo leen di jox foulard fulaar yi nag génnee jox na élèves yi seen foulard bañu wara commencer tay waaye fulaar yi ay fulaar yu ndaw ndaw la ba paré taxi si loolu mu permettre élèves yi bañ duggaat jàngaat fofu nonu ren rek la waaye fi ak dewen képp ko xamni day muuru amul ben négociation buñ ci def du jangé ci bobu école école loolu nag ñu ñu fàttali leen ni mi ngi am ci dëkk bo xamni dañ naan dëkk bo xamni ne la jullit ci ak catholique yi yëpp benn la ñu laaj Imam Abdallah Sall mom lan la ci xalaat. jërëjëf soxna si ci bobu question moy école Jean d'Arc ndeysaan xam nga Sénégal dafa am constitution constitution bi d'abord dañ wax ni Sénégal léwu laïc la laïcité. moy ñu bàyyi kenn ku nekk muy doxal religion librement légui nak bi lolu amé euh école bi ñu wax ni école gendarme école bi danaka amna fi amna ñu wax ni amna fi lu ëpp xawma 80 quatre at yu bari dal école bi amna ci Sénégal mais école bi li fi yag yëpp mos ñu taxaw ni kenn du muuru ci école bi ndax lan ñu génne xool ñoom ñu constitution France

wala ñu tëj école bi ñaareel ba euh, ñaareel ba te Sénégal dañu war a sant nag Sénégal mooy seul réew boo xam ne minori minorité yëgu fi coono mais na réew moo dem ci Sénégal minorité yi dañoo dañoo am dañoo am coono Sénégal quatre-vingt-quinze pour cent waaye nag Sénégal minorité majorité la maanaam bu fekkoon am nañ fulla bi ñu am dégg nga ñoom sox du ñu xalaat lii ñaareel ba. ñu leen di naan leen fulaar bii ngeen di wut ndax ñooñu di di muuru dégg nga muuru wu ñu ngir def lu leen neex déedéet dañu muuru ngir lislaam moo leen sant dégg nga ñu muuru kon da ngay wax daanaka école ba bu fekkee ni vingt élèves ñoo fay muuru wala vingt cinq jàppal ni ñoom ñëpp vingt cinq yooyu rek ñoo fay def li lislaam santaane te xoolal wax nañu sax ñi eh, ñooñu di muuru ñooy ñooy ñooy meilleur élèves yi nekk ci école ba ndax gis nga lislaam boo ko toppee rek yàlla dalay mooy kiis bu rëy bi yàlla dalay jox xel kon nag ñoom ñun d'accord ñu benn yoon lii nga xamee ni waa gendarme ñu ngi koy def naan ñooy wutal seen bopp fulaar waaye tam am nañu lu ñu di lool soxna si am nañu lu ñu di lool dinaa ko wax waa HLM yëpp dégg ka ku ñuy wax professeur Penda Mbow mi ngi dëkk fii ci suñu gannaaw day di ay teranga sax di ko andi ci jakka ji waye nak wax deug yalla dama beggon mu delu ci wat touti ndax islam du wax yow nga wax contraire ba ndax mom mi ngi wax nan xalé yi dañ leen wara bay ñu baña muru lolou kenn du ko wax ci aduna lolou moy moy moy moy contre l'islam carrément kon aja penda xam nga ma xam la yaangi fi ci kannaaw jakka ji di andil jakka ji ay teranga waaye sa kaddu yi daal maa ngi lay seedeel ni jullit yi nekk ci Sénégal yi ko dégg yëpp xoolal ñu ngi lay xoole beneen bët man de beneen bët laa la doon xoole wax dëgg yàlla mooy bëtu jullit laa la doon xoole bëtu ku ndax xam naa sa baay bëtu lislaam laa la doon xoole waaye nag ma yëgal la nit ñi la xamul ñëpp dégg nga ñu ngi wax ci yow te leneen la ñuy wax beneen bët la ñuy xoole kon soxna Penda lépp lu lislaam rëddati jël leen ko ngeen tek fe ndax l'islam mo jëk jox jigen akam islam mo jëk jox jigen hakam de nga ni ka na tok ci kërëm waye waxu ko bu mu liggey ni ko it ni góor gi na ngay topato euh, soxna si soxna si bu mu ñak dara lolu yeb l'islam parce que avant l'islam jigen dawul sax doon far kon wa wa Jeanne d'Arc lii nga xamé ni ñu ngi koy tek julitu Sénégal yi ñu ngi ñaan gouvernement de nga mu taxaw ci jël ci ay mesures yu dëgër sinon mën na am ay problème yu bare yoo xam ni dana ko indi ci Sénégal te école bi jaru ko. wax dëgg yàlla démb démb démb démb la ñu woote woon benn conférence bu rëy ci laa xam nag ci la am information bi moo tax waaye lañ fa wax lañu génne carrément mu wax ko ma dégg ko waaye moo tax waaye waaye jotu ma dem ci moom waaye daal loolu nga xam ni. Euh, nañu bàyyi affaire féministe yooyu dégg nga loolu baaxul ci dégg nga ci Sénégal Sénégal dégg nga réewu jullit la ndax mag ñi fi jaaroon ñoo ko liggéey ba am quatre-vingt-quinze pour cent boo demee réew yu bare amuñu ko boo demee Tunisie amuñu ko boo demee Égypte dégg nga amuñu ko Sénégal li mu am ci musulman réew arab yu bare sax amuñu ko kooku nag dañ koy sant suñu mag ña dégg nga kon li may li may kiiwee rek mooy Sénégal ñu ngi ñaan daal mu nekk réew jàmm loolu am na ñoo xam ne moo gën a waaye du solution xam nga ñooñu loolu doo nekk ci benn école fukki at wala juróomi at tàmm programme ba naan yaa ngi dem beneen école loolu sa njàng day yàqu waaye ñoom bu fekkee ni euh, euh, loi Sénégal may na leen ko nañu ko fésal parents yi waaye même bu leen ko mayee mënoo jàng ba ca biir ñu indi la ñu indi la benn loo xam ni dégg nga yaa ngi ko doon def loolu mooy mooy mooy premier danger bi loolu loolu mooy mbir bi sama copain yi sunu groupe whatsapp bi dañoo organiser benn nattu VIP natt bi ku tegg dix millions nga yow dix millions am nañu ñaari marié bi ñëw tey ah. te ñaar ñëpp dañ maa lank yow da nga may xeeñ ci yow laa abonné yaay sama réseau waa lëz moom nii lañ koy bàyyi lëz mom ay beutum barkelu dara de yow dal sa jëkkër defati na marinam indi na fi benen stagiaire bu bes xam nga yifi jotone nek nekk dafa jeex yi rek ñoo fi des kon daa ko ngoon seen bitig bi amul lu rafet xale bu jigéen boobu sàcc ci international what way lu ma ci wat bo may gëm nga gëm bo ma gëmul ya xam gis nga kenn ki hmm. wona na exam ba mu gogu di gis yow yo yow bitig baa ngi toj waaye bitig bi yo. bëgg may sa waaye yow yéen dalan da ngeen defante da ngeen defante defante leen defante yaa ngi noonu saman sa podi sama looy def fii kele manti wacan kin cong rampa capan kin cong man amu benn maam bu juddoo si <laughs> dama ne la bu ma waxate nga da ci teg baat ok kon loolu la